noonu la ñuy xaar xam naa da ngay bañ ma anticiper. parce que plutôt que ay rapport de force ay xeexante ak defante. merci mm. beaucoup mon oncle Edor. Mm. Euh, cher Ousmane euh, Moustapha. yow da nga namm Cheikh Ousmane. dama ko namm uh-huh. dafa doy waar di ko. <laughs> <laughs> Moustapha Mbaye euh, par rapport ak violence yi cortège Ousmane Sonko bi ñu attaqué ko mais li loon gën a seetlu da loon gis parti au pouvoir peut-être nga xam ne ñoom ñoo am doole sax ñoom ñoo loon attaqué l'opposition cette fois-ci on voit le contraire.

Mhm. mais est ce que sa askan sa population say nit paré nañ pour apport pour fekk si la si loolu mhm. parfois loolu am xam nga su fekkente ne dañu xam ñep xam nañ né période campagne électorale nit ki mën na baña gis Ousmane Sonko mën na ko gëj gis ay at mhm. campagne rek la am pour gis ko nit bëgg bëgg mën na ko wër ay at campagne la am rek xam na Ousmane Sonko kër gi dina fi dugg heure sangam dina génn kër gi heure sangam donc souvent am na defkatu ñaawte fi bëri yo xam ci campagne li ñuy profité pour def li ñu bëgg a def parce que dañuy yaakaar dafa am benn impunité totale bu fa am

campagne électorale do période bo xamne dañ nan tout est permis meun mm-hmm. nañ fexé ba organiser convoi bi mi ngi ñew bi ñu bañ fexé bañ bañ a fekkante mm-hmm. xol naka lañu ñuy def ba bloqué ñi ñi avancer ñi dogu a dugg si yooyu yëpp ay mbir la mm-hmm. yo xam buñ ko défé meun nay meun nay indi jàmm parce que euh, convoi lu ko dégénérer lo dafa yomb trop ben xeer sax boo ko sànnee nga meun nga meun nga sonal meun nga yàq xew mi loolu moo ñu bari yaakaar ne euh, côté sécurité war nañ ko gën a renforcer wat benen mbir bu am il faut que Ousmane Sonko xamné tamit moom sécurité moomu ko am na sañ-sañ nag ne mm. su may su may dem sama manifestation politique du ma ànd ak kenn samay garde lay ànd yooyu te mm. loolu pour man sax bu ñu jógee ci da ko war a bàyyi mm. parce que am na loo xamante ne moomu ko jamono ji dañu toll foo xamante ne Ousmane Sonko du Ousmane Sonko Sénégal kese mais Ousmane Sonko àddina bi yëpp la. waaw te nit ñi bu ñu xamee ne kii tey ji bii dem fi benn gaar lay àndal wala amul ñu ki kii dafay banaliser nangam ak nangam. lu ne mën na cee xewee. su fekkee da nga da nga da nga da ay réforme da ngay digg ay changement tëkku ñoo xamante ne ay lobby lañ am mm-hmm. taxawaay boo bëgg am loo bëgg am nañu mu neexul mm-hmm. waaye léegi ñoo ñëpp nag il faut nga waajal sa bopp ci côté yëpp mm-hmm. waajal sa bopp si côté yëpp nag dafay bokk sa sécurité nga bañ ko négocier bañ ko caaxaane bu yeboo ñu wax lu nekk mais na nga fexe ba sa sécurité lu si am gannaaw lu jógul si yàlla doo ko tiit mais comme yaakaar ne non dañu jëm campagne naa yemale doole yi naa def ni def ni il est le premier ministre yeneen candidat yi amul benn premier ministre bu ci bokk donc loolu pour man am na yoo xamante je pense que bu si jógee dina xoolaat sécurité am ba yu bëree mu ci mu pas pour rien ministre boo ñu détaché ko ak benn agent BIP mu mu di ko mm-hmm. et pourtant euh, mënoon ne non ministre la dafay liggéey bureau dem ñëw toog non non. Mm-hmm. parce que dafa nekk ci appareil état. Mm-hmm. di liggéey di signer ay contrat di résilier ay contrat di am ñu muy dàq du am ñu indi di am ñu Euh, ay ay convention yu muy signé yi mu koy tas donc dina def lu neex nit dina def lu naqari nit. Mhm. léegi kooku nag mun na doon sible mhm. donc yooyu yëpp moo waral ñu leen di seen sécurité ñu ci bàyyi xel yaakaar naa ne bu ñu ci jógee.

des réalisations, les budgets investis, ce qui reste à être fait, euh, c'est évaluer chacun de son côté les euh. politiques envisagées dans le cadre